demander à chaque marabout, et on peut dire à chaque autorité, d'avoir, voilà, c'est le président de la République donc, euh, qui est là devant ce et certainement, d'un moment à l'autre, il va délivrer son message. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voudrais, avant de délivrer le message, saluer l'imam Ratib de la Grande Mosquée de Dakar, saluer le grand sérigne de Dakar, saluer l'ensemble des fidèles qui sont venus accomplir le rituel prière de l'aide El-Fitr Rendre grâce à Dieu d'abord et dire mon immense plaisir d'avoir pu sacrifier à cette tradition avec les Sénégalais et dire que par la grâce de Dieu, nous avons pu commencer le jeûne, faire une campagne électorale paisible au Sénégal, faire une élection calme et sereine au Sénégal et choisir dans la paix le président de la République. Ce qui nous a valu le respect et l'admiration du monde entier. Rendre grâce à Dieu dans ce mois béni de Ramadan, qui est un mois de communion, de dévotion multipliée, mais surtout de dévotion acceptée et bénie. Priez que toutes ces dévotions-là soient la garantie d'un Sénégal de paix, d'un Sénégal d'unité, d'un Sénégal de cohésion sociale. Dire le pardon que j'accorde à tout le monde et demander de chacun et de chacune le pardon. Et demander à Dieu, subhanahu wa ta'ala, de nous pardonner tous et d'accepter notre jeu et nos dévotions durant ce mois béni. Le ramadan est un mois de convivialité et de solidarité. L'imam Ratib l'a rappelé dans son serment, l'importance de la solidarité l'importance de la générosité entre concitoyens et l'importance de la consolidation de notre précieux vivre ensemble à travers cette solidarité agissante entre musulmans, mais aussi entre musulmans et catholiques, et plus globalement entre musulmans et tous ceux qui ont une autre confession. Nous devons dire que le Sénégal est un pays qui est un et indivisible. Il est de notre responsabilité collective et de notre responsabilité individuelle d'entretenir ce vivre ensemble qui fait la stabilité de notre pays que le monde entier nous envie. Le Sénégal est un pays de grands hommes, de grands hommes de Dieu, de grands hommes politiques. C'est un héritage sacré et c'est un héritage précieux que nous avons le devoir de perpétuer. Je voudrais, avant de terminer, rendre un hommage appuyé à tous ceux qui nous valent la satisfaction des titres que nos enfants remportent à l'échelle internationale dans les concours de récital du Coran. Je veux citer tous les maîtres coraniques, quel que soit les conditions dans lesquelles ils enseignent le Coran. Je veux citer tous ces imams ratib, mais je veux surtout citer les grands hommes de Dieu, à savoir les khalifs généraux. Quelle que soit la confrérie, il reste qu'ils sont tous khalifs dans la confrérie musulmane et plus globalement dans la religion en voulant intégrer le clergé. Je voudrais saluer et rendre grâce à Dieu de leurs prières bénies, qui sont le socle, le pilier fondamental qui tient ce pays-là et qui nous permet, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les, euh, les, les, vicissitudes que nous traversons, et quel que soit le point auquel le pays a été secoué, de rester debout et de finir par fasciner le monde entier. Voilà ce que je voudrais transmettre comme mot en priant pour eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une longue vie, une santé de fer et continue à les laisser nous guider, nous soutenir et nous tenir à travers leurs prières bénies. Assalamu alaikum wa rahmatullah. am na solo gannaaw kon euh, ba nga euh, euh, ci grande mosquée de Dakar ban message nga bëgg a yëkkati ci wàll Assalamu alaikum wa rahmatullah balaa may joxe message bi rek bëggoon euh, nuyu imam ratib bu grande mosquée bu dakaar di nuyu tamit grand sëriñ bu dakaar di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ay góor wala jigéen ñëw nañu jullisee fii ci grande mosquée bu ma nuyoo imam grande mosquée de Dakar rek mel na ni nuyu naa imaam yëpp ak fu ñu mënti nekk nuyu naa kilifa diine yëpp ak fu ñu mënti nekk mel na ni tamit bu ma nuyoo sénégalais ak sénégalaises yi fi ñëw julli si mel na ni nuyu naa sénégalais yépp jóg tey dem julli ji ak fu ñu mën di jullee ci biir Sénégal ak ci biir àdduna bi di sant bu baax a baax a baax gannaaw bum ñu mayee ñu jóge ci xat-xatu élection yoo xam ne xëy na ñun ñëpp ci njëlbeen tiitoo nañu ci waaye ñu dugg ko ci weeru koor génn ko ci weeru koor tamit di ci sant yàlla bu baax ci ñum lu mayee ñun ñëpp Sénégal ndax Sénégal moo ko moom ndam li nga xamante ne doonte xëy na am na ñu amoon tiis ak njàqare yàlla may nañu ba ñu génn ci jàmm am élection boo xam ne àdduna yëpp jaaree na fa gën a naw Sénégal loolu nag lu ñu ko may mooy ñaan yi nga xamante ne nit ñu baax ñi fi jiitu ñu ngi ko fiy ñaan guddeeg bëccëg ñaan yi nga xamante ne ñi fi nekk tey dinaa fi la di yokk seen ñaan rawatina ci weeru koor gi di zikr di jàng ay xasida wala ñuy wasifa wala ñuy dem ci jàngo yi wala ci yeneen anam di ñaanal réew mi di ñaanal waa réew mi ñu koy sante yàlla bu baax a baax a baax nag gannaaw bi xat-xat yooyu tombeek weer wi nga xamante ne weer la boo xamante ne yàlla def ci full lépp loo xamante ne ñaan la te gaaw nangu ko lool di ñaanal ñi nga xamante ne nag ñooñu ñooñu ma tudd noonu muy kilifa diine yi kilifa aada yi muy sénégalais yeeg sénégalais yépp ak fépp fuñ di nekk di ñaanal réew mi di jóg guddeeg bëccëg suba ngoon di ko def di leen sant ci ndax ñoom ñooy li téye réew mi ba nu ñuy jaaxle jaaxle jaaxle ñaan yooyu rek mooy li nga xamante ne moom lañuy mën a expliquer luy tax senegal du tabbi ci guuta waaye nag looloo tax tamit senegal ay nit ñu màgg ay nit ñu baax yàgg fee dund yàlla wàcce leen fi muy xéewal ci réew mi te ba fu ñu toll nii ñu nekk fi wéy di ñaanal réew mi ba réew mi alhamdulilahi rabil alamin am nañ loo xamante ne àdduna yëpp moo ñu koy ñeewant moo ñu koy moo ñu ci ñee bëggoon ko am te xëy na ñëpp amuñu ko bëggoon tamit balaa may jóge ci kilifa diine kilifa aada yi ak ñëpp ñi nga xamante ne ñooy def loolu sant bu baax a baax a baax nitu daara yi sant bu baax imam ratib yi ndax su ma tuddee imam ratib bu grande mosquée de dakaar mel na ne tudd naa imam ratib bu mosquée jàkka yëpp ci biir Sénégal ak jumaa yëpp ci biir Sénégal waaye dafa am loo xam ne ndam la ci ñun que doomu Sénégal yi yàgg di jóge fii dem jongante ci tarig alxuraan indi ay raaya te loolu ñoom lañ koy sante quelque que nag jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy am ci bu ñu dee jàngale alxuraan di ko def ci ay nit di defar nit ñi waaye di def ci ñoom tamit xam-xam weeru koor nag da di weer goo xamante ne weerug cant la weerug jàppalante la weerug suturalante la te sénégalais yàgg nañ ci jàppalante yàgg nañ ci suturalante te jàppalante googu la imaam doon wax sànq ci xutbaam ne mooy li nga xamante ne moom la diine woote te xëy na sax moo tax diine bokk na li tax a jóg ndax jàppalante boobu mooy tax ku am jafe-jafe doo ko yégee ni noo ko war a yëgee ndax xam nga ne am na koo xamante ne mën nga weeru ci moom ba mu sedd ci yow wala mu oyof ci yow di ñaan di ñaanal Sénégal di ñaan sénégalais yi tamit ñu ñaanal Sénégal continuer di ñaanal senegaal ndax fii lañu am amuñu feneen bu mettee fii la bu neexee fii la li ñuy sàkk muy suñu njaboot fii lañ koy sàkki niñ ko jàppee nag ay nit teg ko ci suñu loxo ci jàmm noonu lañu war a jëlee tamit te waxuma président de la république waye sénégalais fi dund yépp dañu war sénégalais ñi ñi ñëw ëlëk ñu liggéey lutax bu ñu ñëw ñu xamné Sénégal gi génération ba génération ku ci nek def nga ci sa wal ci jamm ak jamal ba joxé ko ci leng joxé loxo yi ci joxé ko ci yenen loxo ci jamm ñoñu continue tamit di jamm di di di di dox jamm di wax jamm di def jamm pour Sénégal yi fi nek yépp mëna am jamm kon maa ngi baalu ñëpp ak ñima ma xam ak ñima ma xamul ñi ma tooñ ak ñi ma tooñul sax di baal tamit di baalu tamit ñëpp ñi nga xamante ne tooñ naa leen ci li ma yëg ak ci li ma yëgul di baalu sax ñoo xamante ne tooñuguma leen te di ñaan yàlla mu boole ñun ñëpp baal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kon euh, loolu doon kàddu bi nga xam ne mi ngi tukkee si njiiti réew mi di président ba Bassirou Diomaye Diakhar fay mi ngi nuyoo nag fi mu nekk nii ak grand serigne Ndakaaru ak euh, imam ratib ak kilifa yi nga xam ne itam ñoom ñoo fi teew euh, ñu nekk nag waxtaan woo xam ne nii Ibrahima euh, gannaaw ba mu siyaare ñëpp ndokkeel ñëpp balu àq ñëpp nee na ni mu ko waxee ci mujj gi ci ñi mu tooñ ak ñi mu tooñ ñi mu yëg ak ñi mu ak ñi mu tooñugul sax <laughs> loolu nag day mandargaal ak maandu ak maandu ci suñu borom ak maandu ci jaamam yi uh-huh. ndax suñu borom nag dafa bëgg ko maandu ci jaamam yi ko am yërmande ci jaamam yi te itam te bañ a tooñ sax ndax sëriñ bi dañoo jàngal ne Euh, képp ku ñuy tooñ ngay fayu day xamale la ma bëgg ci amaguma ko te nee bu ngeen gisee ma leen di tere ak tooñ mooy dama eh, euh, man tubaab bi damaa tooñ ma bañ ko ma bañ a fayeeku suñ hmm. borom fay ma fayul ma ndax ku nekk xam ne sëñ bi moom sëñ bi moom sëñ borom fay na ko fayul ko lool nag ni ñu ko waxee ci moom nañ ko mën a waxee ci ñeneen hmm. kon nag te euh, wolof itam di wax naa moomu teg ci ne kat kuy tooñ du mucc hmm. kuy fayu itam du noppalu kon la gën mooy bañ a tooñ bañ a fayu ndax kuy tooñ du mucc mukk tooñ kat du mës a waaye kuy fayu itam tu passes tout ton temps à te venger doo fayeeku doo doo noppalu mukk kon mel na ni nag président mi ngi noon di dugg ci otoom di dem loolu rek mu nekk kàddu yu ndokkale Ibrahima kàddu yi itam siyaare waaye itam kàddu yi ñaan ci réew mi ni mu ko waxee mhm. ngir jàmm réew mi ak dal réew mi ndax nee na moom la ñu am réew mi lañ am amuñu feneen mhm. te nee na ñii ñëw itam war a ñëw war a ñëw ndono li bu koy suñ borom dogaleeg jàmm war na ñëw teg réew mi ci loxo yoo xam ne loxo yu sell la mhm. loxo yu set wicc loxo yoo xam ne tam jub ak jubal ni mu koy junjee effectivement sëñ Xaali moom il est dans la projection déjà mu ngi xalaat ne tey li nga xamante ne moo tax ñu teg ko fii xam na ko et il en conscient ba tax na déjà muy xalaat ne balaa bu yàlla defee mu fiy jógee fas yéene na vraiment def loo xamante ne dinañ ko rafetlu ba mu transmettre pouvoir bi ci anam gu rafet comme niñ ko ko joxee kon nag moom déjà conscient na ci li nga xamante ne mooy force Sénégal moy solidarité bi conscient né Sénégal dëkk gëm-gëm la fatali ne li nga xamante ne moo karim bi nga depuis des années des siècles des siècles ñu ngi koy jang ci mu rafetlu euh, succès bi nga xamante doomu sénégalais yi ñu ngi koy am biti rew ci concours international yi nga xamante ñu ngi koy organiser donc mu fatel lolu fatali solidarité vivre en commun bi nga xamante mo wara jëmal euh, Sénégal mais sëñ xaali dañuy profité ci antenne bi rek euh, am une pensée pieuse à l'endroit des illustres disparus xam ci kanam tout rek dinañ dem ci lever du corps ki nga xamantene modi l'ancien premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne yàlla na ko yàlla mu fi jógee le 5 euh, avril vendredi saint te euh, mom ay ay ay fan rek ci ginaaw élection yi mu ngi won candidat amone yéene ngir jité rew mi té à l'âge de 64 ans la ko borom bi jël en cinq ans itam borom moo dogaloon nga ànd ak moom ci campagne bi. justement ñu ngi la koy masawu ndeysaan moom itam muy koo xam ne tam nit <laughs> euh, nitu.